وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها Il sera un signe au sujet de leur nom de tes poids. ngi nii moo tax ma ne ba mu naan wasalaamu alayya yow ma wulittu fekkew na ko ne bu amul woon jàmm du uutu baayam ba matal dem bay rakkaam uutu ka ba ay doomam ba ñu fekke ko kon am na jàmm ci juddoo wasalaamu alayya yawma wulidtu fekkewu na ko waaye am na wa yawma amuutu deew ak démb gaa bari woon fitna ndax ba pilaat envoyé ay ab armeem ngir ñu ñëw jël ko loola du jàmm wa qawlihim ina qatalna almasiha isa ibnu maryam rasulallah yàlla ne wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa lakin shubbiha lahum un faux semblant un faux semblant lañ leen yàlla tegal na lazina ixtalafu fihi la fi shakkin minhu ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه يلا ودي واي غوغا دي امون فتنه واي يالا نيو ما قتلوه يقينا ري نيوكو دي بو دي وون ني ني يالا نانغول اك نيانام تي وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت يالا ن Isa rayu ko maa aaj moom Seydina Isa ko niral ci yéen ndaka ngeen salabu moom bay Seydina Isa yàlla nee na deewul te li mu ngi si moom Seydina Isa te yonente ne Isa dina wuutu maadi yoo Seydina Isa tabaraani yoo ci wax muslim di wax di kuuk bay seydina isa abu daawuda bindoon wàccug limaamu laay ak seydina saw jant lay juddoo taju saw lay dëkkoo moom seydina te tefes ga lay dëkke dina wuutu maadiyoo bay seydina ya zal jalaale doon lil salaata baay Seydina وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت maam jin bu dem ba àndul woon ak jàmm bu doon daca dee ma xam ne yàlla nanguwul ak ñaanam hmm? idna isa ibn maryam lam yamut yonent bi ne deewul وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة Je vous le dis en vérité, je n'ai jamais été mort. Dieu m'a réservé jusqu'aux approches de la fin du monde. loolu la Isaa wax wa innahu la ilmun li saati fala tamtaru nabiya waaye lan mooy màndargam ne yàlla may naka jàmm si deewam ndax xam ngeen ko si dellu seem fi mu deewee yàlla may naka fi jàmm ay militaire taxawuñu ko mu génn àdduna doom ja yuux mu dekkiwaat toxu dugg ca néeg ba génn àdduna ay dénkaaneem génn àdduna ci bu sedd ci jàmm ñu ne ndax am na beneen màndarga ñu ne ah fii ñu ko suul nu mu tudd du jàmmalaay jeex na kon yàlla may naka si jàmm fa mu tëdd way salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu yàlla nangu jàmm ja ba pare tëral ka jàmmalaay ci jàmm yàlla ja kon yàlla nangu na jàmmam ja yàlla nangu na ko wa yawma ub'asu hayyan nag tey ku ko gëmul tey ku ko gëmul wa aatayna isa ibnu maryam albayinat wa ayadnahu bi ruuxil xudsi waxalu ko yenent bi de isa la waxal ne dama ko bolle ki mandargaam moo tax mu ne nit du xam li ma mu tax xamuma man isa nanga motale bur yalla dikla mu jóg jama nanga motale moo je suis la voie la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi man Issa m'a yoon wi maay zalika aïssa ibn Maryam xawlal mon Dieu, je suis la voie la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi ñun ñu di ko way naan ku gisul Isaa doo gis baayam waaw te mu waxal ko je suis la voie maa yoon wi maa ngi nii tey man je suis la vérité xawla yalla ka ko seedeel lazi fihi yamtaruun et la vie Seydina isa deul mu ngi fi ba leg ni ni mu ngi si suñu biir waaw dégg nga de ngi si bàyyi sayyidina Abdullahi mi ne woon Abdullahi ini Abdullahi dellu si jël taawam tudde ko Abdullahi nekk tur wii laa jëkk a tudde sama bopp yow laa koy tudde loolu dafa rëy de la mët Seydina Isaa moo ko tudde boppam tudde ko Abdullahi inni Abdullahi fa asharat ilayhi ma Maryaama joxoñ ko liir bi xaalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ñu bëgg ñu waxe ko nek ci liré né inni abdullah bala ngeen ma tuddé tuddé na sama bop may abdullah allah diyal kitaba wa akbar fu li jele di Amdu Siise mam mam Seydi Muhammad nuyu na la yaw Seydi laay Madine sanga yaaram waa ma ne laay laay fonk na doomam jii de fonk na doomam jii de la mu tuddoon ak liir la tudde doomam ji lamu tudon tuddoon démb ca Israël mom la tudde domam ji qal ini abdullah al kitab mu yor téere indi khutba ndax fokk mu yor téere wa jaalani nabiyat ma kuntu mu ngi kàmbareen di nabi lay isa wajaalani mubaarakan moo tax fu mu tëdd yàlla barkeel ka mu ngi nii yàlla barkeel Cambérène imaam saxiir bu toogee ba ne bu Seydina Issa doon dund ba léegi institut islamique bi gën a rëy ci senegal Cambérène lañ koy tabax billaahi ataniyal kitaaba wajaalani nabiyan wajaalani mubaarakan kon waxoon na ne am na feneen fu may nekk wajaalani nabiyan ay na maa wa ja'alani mubaarakan ayna ma kunt wa awsaani bis salaati kon kay dina julli wa zakaati xoolal say naay saa ni mu fekkoon azaka rigueur xam nga góor gi ñëwoon jaar yow di ziar Seyna Isa léegi nga nettali ko naka man day dama ñëwoon fii rek jaaroon fii bëgg doon ziar andi walé won na sax sama azak sayna isa nek nekk téye ko ba sama ndaw ñëw ci yow wa atayna isa ibnu maryam al bayyina loolu ay tegtal la ci isa wa awsani bi salati ku da julli sayna isa wa zakati ku gëna fonk sayna isa isa azaka maa dumtu hayyan fekk maa ngi dund julli joxe asaka wa baran bi walidati walam yaj'alni jabbaaran shaqiya wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu ñu tëddal ko jàmmalaay wa yawma ub'asu hayyan motax nañu ko gëm ndax ñu bokk ak mom sa jàmma jooja xam nga motax ni ñe jaayu leen gañe ngeen sëy ro roowalay mi ngeen jangon feñ waaw parce que da ngeen tebbe as nak hmm? sur la voix la vérité à côté bi as kay nga jaayu jaayu leen gañe ngeen jaayu leen gañe ngeen sëy ro roowal ai ni nghen jang gon ven yon nen la mam si di sangalo la ilaha illallah Mam Sidi Sangala Ham nga La ilaha illallah ñëlee nga pincez tous vos cora frappez les balles à fond mooy niti yi àddina yi ñun ñi ne jaayu leen gañ a ngeen ñun yoru nuy cora yi ñuy pincé n'est-ce pas pincez tous vos cora frappez les balles fond le lion rouge a rugi le dompteur de la bourse xam nga le dompteur de la bourse kooku mooy yarkat bi bàyyi lay ne yar leen bala nga seeni doom balaa isaa ku yarul dina yar والذي نفسي بيده لينزلن عيسى ابن مريم اماما مقسطا وحكما عدلا كجب كماندو حمل دوم حمل تالب كجب الحم كون كي جايو لين جايو لين mbay mi ngeen jàngoon feeñ na yonnen la mam siidi sangala la ilaha illa la sanga Mune nul ne vient au Père que par moi Ta Père bi la ne arsalnaka ila rahmatan lil alamin Wa kon buñu gisé Isa kon mucc nañ. ndax mo ñu yobbu ci baay bi ñu naan ndax yalla bay moy bayam. qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mu ne l'heure vient où je ne vous parlerai plus en termes figurés mais je vous parlerai ouvertement du Père ñu ne ko kon nag yow la ñuy déglu gis nga ni mu ni ñu koy toppoo rek topp rek mu ne dama leen waxoon le Père tax waxuma leen kan mooy le Père mu ne waaye nag bés a ngi ñëw waxtoo ngi ñëw woo xam ne dootuma leen junj baay bi waye dama leen di tudd jàbbet bay bi ñu ne ko waxal mu ne fa min isa ruhullahi naj li almahruf bil khair wal karam ne vient au père que par moi qui est le père ouais mais s'il vous plaît dis-nous qui est votre père et vous ne connaissez pas mon père non nous ne le connaissons pas ou bien c'est le bon Dieu non Mais l'heure vient où je vous parlerai, je ne vous parlerai plus en termes figurés, mais je vous parlerai ouvertement du Père. kon ku ñëwul fii doo xam kan moy Bayu Isa. kon taayu lan daanee ngeen. say nii roowaale li ngeen dangoon feeñ na la moom Seydi sang la layla fa min Seydina Isa la sàllalawul sax bopam ndax xam na ne sang la fa min sayidina isa ruhullah najli imaamillahi ñu ne ah ne ouvertement du père kon ndekk bay bi imaamullahi la tud wa nabiyu wa rasulu wa xaliilu wal xabiibu wal imam wa daliilu kayfa antum ida nazala ibnu maryama fiikum wa imaamukum minkum defe naa léegi mu leer déglul déglul mu ne déglul déglul ah yow tam nag sëy naa ñang bi dee ma ko nettaloon mu ngi ni man ko ko nettaliwaat sëñ laay toog ci seesam ma taxaw tiim ko muy wax kàddu gi génn sama gémmiñ mosuma ko bëgg a nettali ndax man duma damm duma damm yow mi yaa ma ko xool ndaw saa ngi fi jeex na te loolu sëñ Ablaye booba toogagul kon bu ma la kasafee yàlla na bu ko defee je vous parlerai ouvertement du père dinaa bés nag da ngeen di laaj kuy sama baay ak di juum ci moom ba naan fils de Dieu je ne suis pas le fils de Dieu je suis le fils de l'homme avec H majuscule y a les hommes mais y a l'homme Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Monnaie, comme l'éclair en effet. xam nga bàyyi lay dafa mos a toog mu ne mag ñi alaay bu ngeen defee ne dama gëmm dama gumba ba ki satuma baa ma tëx ba déggatuma mu ne wax set lë ga ca gën a lëndëm guddi ga bu sànqaleñ laalee maw saxet dégg na ma kë ba doxee si maw saxet dégg na ma ko bu laalee maw saxet gis na ma ko waaye bés a ngi si bis yi ngeen ñii joo gis limaamu mën a mu xeet di malaakam fanweer ah, di di ndawul fanweeri at ak ñett limaamum fanweeri at ak ñett sàllaaw keroog ka ma ne bàyyil ma kër dinaa bàyyi ma kër ba ngeen defee ne dama gëmm ormal ban ba dama gumba ba satuma wala dama tëx ba déggatuma mu ne waaye bés a ngi si bés bi mooy génn ak àdduna ga ngeen ñii joo gis limaam na mën mu xeet di limaamum fanweeri at ak ñett dañ kumpa ni kooba gaaw ni mela waaye xam nga ba déglu rek sew sew yooyu gaaw ni mela Isaané, comme l'éclair en effet, comme l'éclair en effet part du levant et brille jusqu'au couchant. bàyyi lay fu mu xam ne Isaa vitesse su melax la yor fan la ko jàngi dañ kumpani kooba gaaw ni melax keroog ka ma ne bàyyi lu ma kër dinaal bàyyi ma kër waaye